maaleykum man la Fatou Dieng Fall di directrice bu rajo Gindiko FM Thiénaba ñuy am mbégte bu baax nag ànd ak yéen ci seen chaîne ba TV tey li nga xamante ni moo nekk suñu jéego fii ci mairie bu. ba mooy ñëwoon rek doon saafonte ak le première magistrat de la commune di El Hadj Talla mais ñëw aussi indil ko yóbbante boo xam dafa jóge ci ministère de l' éducation ginnaaw ba ñu xaatimee ak waa URAC di kuréel gi nga xam ne moo ëmb rajo communautaire et associative réew Sénégal ñu bëgg gunge ndaw ñi nga xam dañ daan def ay cours de vacances te ren jii mu ànd ak Covid 19 kon mbooloo mi du mën a ne du begg beggandi ñu indi nag programme boo xamante ni moom la ñuy woowee apprendre à la maison maanaam jàng ca kër ga. léegi nag loolu bi ko ministère bi jooxalee ba mu ba ñu xaatim ko dañ koo jébbal rajo yi rajo bu nekk nag dafa am comité localu boppam bu muy taxawal municipalité bi daf siy feeñ ñu jaarale ko ci commission éducation bi AP yi dañ ciy feeñ comité de gestion école yi dañ ciy feeñ enseignants yi nga xam ne ay doomu Thiénaba lañ fi nekk ci vacances yi dañ ciy feeñ équipe bu rajo bi aussi dañ ciy feeñ raw na responsable des programmes ak animatrice bi nga xam ne moo yore wàllu njàng mi loolu nag liñ ci séentu pour waxaw askan wi mooy am njàng la moo xam ne ci ci rajo bi nga koy dégloo mu amal njariñ gune yi mu jëm ci ay lesons de lecture ak ay leçon de calcul léegi nag lépp loo xam ne danga koy def ngir askan wi da ngay fexe askan wi joti ci laata ngay door ndax ñu mën a xam fan lañ cay taxawee ak njariñ ba leen di amal booy xool loolu moo ñu yëkkati woon ñu ñëw fii ci mairie bi ngir jébbal note d'orientation boobu ki nga xam moo jiite mairie bi te jox nañu kàddu ni dinañu boole commission éducation bi dinañ defaat ay jéego it seeti APE yi seeti tamit ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu njàng mi ak képp koo xam ne développement ak njàng soxal na la dinañ fexe jóg fekki la booy xool daal loolu mooy kàddu yi fexe ba jàngalekat yi ak ndaw ñeeg yaay yi kenn ku ne dugal ci sa loxo xam naa du ñàkk sax waa euh, Thiénaba TV dinañ leen envoyé li nga xam ni mooy spot bi des fois am nuñ ko defaree ba nit ñi dinañ ko mën a déglu di man tamit léeg-léeg yenn euh, ndaje yi ñuy amal di ko waxtaane ñu koy jël bu ko defee aussi ñu koy mën a jàllale suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ci cene ba TV di ñu ko jàllaleen ñi leen di seetaan di ci mën a bàyyi xel booy xool daal loolu mooy kàddu yi ngir mu gën a yaatu ndax dañu bëgg a def ay groupe d'écoute groupe d'écoute yi mën na nekk individuel xale boo xamante ni nekk na ci këram te am clé USB bëgguñu defal ko ci leçon yi day ñëw ñu identifier ko ak kan mooy waajuram pare defal ko leçon yi bu demee ab diir lu tolloog weer dinañ ñëw natt ko xool lan la jàng ab jàngalekat dalal ko ci rajo bi wala ñëw defal ko interview ngir natt lan la fa jànge ak la ban njariñ la ko amal ak yan laaj lay laaj pour ñu leeralal ko loolu aussi pour yombalal ñi nga xam ne mënuñoo jàpp heure rajo bi wala léeg leen mu fekk leen ci leneen wala guddi mooy seen heure bi nga xam ne ci lañ mën a jàng loolu tamit dañ koy yombalal wuy jur yi di ko yombalal tamit ndongo daara di ñaan rek yàlla mi nga xam ne moo indi mbas mi yàlla na ko saafaraal boppam dénkaat suñu bopp ki nga xamante ni mooy sëñ Abdourahim Seck mi nga xam ne moo jiite cene ba ci moom la ñuy jaara rek joxal nuyoo bépp xalifa boo xamante ni yaa ngi ci réewum Sénégal di leen dëkkaat loxo yi rek di leen wax ñoom ñooy suñuy keno ñooy suñuy sësuwaay bu ñu tegee loxo rek duñu fanaan biti asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.